xëy dañoo toog nii ba si yàgg ay booru midi rek affaire bi commencé tàkk quoi ci suuf quoi xamuñu nag lu ko taal mais xam la xamuñu demee noonu ndax gis nañ fii courant yi daal ah, branché wul quoi mais na yàlla la rek lépp yàlla la quoi lim ñu ko joxe rek yàlla mën nañ defaat ñu dem bañ amaat lu ëppaat noonu quoi li fi lakk xam naa valeur bi war nekk ay 15 millions quoi mais nag lépp yàlla la yëpp moo ñu ko joxoon toog nañ daal benn instant muy saxaar avant ñuy génnee suñuy bagage affaire bi jàpp comme ça noonu la demee bett ñi daal la def daal bon non non non sont tardivement moom tardivement kay parce que bi ñu leen wooyee ak fi ñu ñëwee presque ëpp na 30 xam nga safara moom dafa gaaw quoi benn instant bu xasee ba jàpp moom bu gars yi xawee yéex rek day day yàq quoi bi bi la bi bi affaire bi déclenché safara si bi mu jógee ñun mënatuñ si dara bon xaar nañ leen bi ñu yëgsee ñoom it ñu koy fay rek yàgg na quoi fekk na lépp jàpp. lakk daal soxna si pour te dire. ñun mënuñu la wax nan la demee dafa gaaw c'est tellement rapide ay côté 11h midi si ginnaaw fii dafa am ay pare-choc yu bari laa yu nekk si ginnaaw fii am ay bagage fii yëpp booy fii la ñuy nekk di daan seen doole am seen ay bagage di liggéey mais affaire dafa gaaw parce que si ginnaaw ay bagage ay carrosserie moo fa nekkoon ay caoutchouc yooyu pare-choc dafa jàlloon ba nekk si kaw a jékki-jékki gis mu def benn feu ñu nekk fi di jël di wàññi di jël di wàññi mais par la suite xal yi moo ëpp doole c'est tellement rapide kenn mënu la wax yu bari lu bari yàqu na fi franchement parlé bari yàqu na fi ah franchement parle ils ont mis un peu de temps woo nañ leen ñu ñëw macha ba ñu ñëwee def nañ liggéey bi mais wax dëgg yàlla xaar nañ tuuti doog egg waaw ba ñu teelu ñu ñëw quoi mais teelu ba ñu ñëwee liggéey bi nu mu toll ak nu mu méttee defar nañ ko waaw dem nañ ba am problème ndox defaat jàpp vraiment ak ak gars yi nekk fii yëpp liggéey nañ macha jàpp nañ daal. bon benn côté mënuma wax loolu parce que liggéey bi bien vrai que fekkee même suñu nekkee ñun bloc. lu si ëpp liggéey bi sa individuel kenn ku ne presque sa bopp nga fi nekkal fekkoon mais am na ñuy liggéey banque am ñoo xam ne ay ay natt la ñuy liggéey am ñoo ay banque la ñuy liggéey waaw waaw loolu wax nga wax nga question mu am solo soxna si parce que dafa bëri ay góorgóorlu koo fi gis père de famille la koo fi gis soutien de famille la fi gis kenn ku ne il a toute une famille envers derrière lui parce que ñun même mi doxee mine de rien j'ai plus de vingt ans fii fii laa xam xaw ma feneen laa xam heureusement dañu am fii placard suñu magasin mu ngi ci kaw am na ñoo xam ne sax amuñu sax loolu ñu yàlla dimbal nañu am nañ benn am nañ place ci kaw mais vraiment dafa metti parce que fii lañ doon teg suñu bagage fii luñ fi ñàkk bari na suñu rakk yi fii lañ nekk suñu xarit yu bari ñàkk nañ fi ay affaire yu bari xam nga am na ñoo xam amuñu dépôt ñun peut yàlla dimbal am nañu dépôt mais am na ñoo xam amuñu dépôt mais nag am na ñoo xam fii mooy seen dépo mooy seen lépp métti na trop franchement parler kenn ku la ne daa fekk fekkewul mais métti na trop trop trop ba si kanam yàlla. ah ñu protéger Euh, trois mois fenn la quoi xanaa ñu protéger wu rek jéem def mobilisation xool ku ba xam quoi xool nu ñuy defaree ni ñu koy lijjantee ëllëg ba affaire yi dootu mën a am quoi lépp si loxo suñu borom la après ñun tamit nañ jéem a def effort pour xool ba xam suñ euh, nu ñuy organiser quoi ba xam ne lii yëpp loolu fa amati. ah autorité ah, daal ñoo leen déglu quoi ñoom nag ñoom ñoom dañ ñun leen déglu. am fi amuñu leen lu ñu leen wax ñoom ndax démb am na policiers yoo moom lépp si loxo suñu borom la daal ok ëllëg de moom ah nous nii dañuy jàpp ne lii lu yàlla dogal la rek destin la rek yàlla tudd la sun sun sun dund quoi xam nga li ñuy ñaan daal mooy mu yem fi quoi et puis état aussi jëm leen jëm ñee jàppale parce que vraiment marché bi li muy lakk bëri na quoi bu yàggul rek dégg ngeen ko fi Petersen lakk gis nga tey